Sénéinfo International. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju mi ak ci internet yi safoo seen info point net ak seen info international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal la xibaaru tey di avril ñu fas yéene ko tàmbaleeg xibaaru biir réew mi. démb nag kii di président Macky Sall euh, mu ngi doon présider fële ca. centre centre international de conférence Abdou Diouf bu Diamniadio li ñuy woowee ab conseil présidentiel ci mbirum xëyu ndaw yi muy emploi des jeunes euh, moom nag gannaaw bi nga xamee ne kon validé na programme ba validé na programme boobu te it laaj na gouvernement bi sax ñu finaliser ko balaa le 30 avril di jot wante nag président Macky Sall profité na kon ci occasion bi ngir dellusiwaat ci manifestation yi nga xamoon ne amoon na fi ba sax lu ëpp fukki nit ñàkkoon ci seen bakkan moom nag artu na ñi nga xam ne ñoo doon manifester nee leen daal nii kenn dootul nangu mu am Sénégal. daal wante itam ñu bëri dañoo jàpp ne kon am na yeneen baat yu mu fa yëkkati yoo xam ne kon daa mel ni daal da doon sànni xeer eh, kii di Ousmane Sonko ndax sax mu ngi naan eh, bu leen mu ngi naan am na ay nit yoo xam ne daal dañ leen di wax yoo xam ne ay naxe la nekkul yooyu eh, mooy tax kon mm, senegal jëm kanam walla nekkul loolu daal moo leen di génne si jafe-jafe yi ngeen nekk. journal Les Échos moom nag nee na kii di ministère. de l'intérieur bu Sénégal nga xam ne moom moo war a daal euh, moom moo war a kon euh, saytu li nga xam ne moom mooy sécurité nit ñi nee na daal de kon kii di ministère intérieur bu Sénégal fi mu nekk dafa décidé daal jënd ci lu toll ci fukk ci ay oto yoo xam ne ay euh, véhicule blindé léger la type BATT oto yi ni mel nag ñoom war na oto yooyu daal liñ koy faral di jëfandikoo mooy comme ay manifestation ay manifestation ak yi ni mel bu amee kon ci la ñuy jëfandikoo ci la ñuy jëfandikoo yooyu les genre oto ngir mën a daal euh, riposte bu manifestation amee wala yi ni mel ñu bëri nag jàpp ne kon manifestation yi nga xam ne kon moo fi xewoon euh, mois de mars bi ñu génn moo tax taal kon ba euh, lii di nguur gi fas yéene jënd fukki oto yoo xam ne fukki oto yooyu nga xam ne kon ay oto blindé léger la de type BATT bu bu fekkee nag jàngoroy coronavirus tolluwaay bi ministère ministère de la santé bu Sénégal xam ne ne tey def na lu toll ci mille deux cent vingt cinq tests quarante sept ñoo ci positif dix neuf yi ay cas contact suivi la mu am vingt cas transmission communautaire ca geneen wet gi nag am na euh, soixante sept personnes yoo xam ne jot nañ wéer kon wéer nañ amatuñ doomu jàngoro bi wante am na fukki nit yoo xam ne. seen wér-gu-yaram dafa sooxe lool li ñuy wax cas grave ba sax ñoom ñu ngi réanimation bi fi jàng duggee nag ba sub tey Sénégal compté na toll positif 38 786 jot nañ see wér 1097 ñàkk nañ ci seen bakkan fi mu toll nii am na lu toll ci 138 patients yoo xam ne ñoom ñu ngi sous traitement bu fekkee mbirum vaccination bi nag lu toll ci 395 635 personnes jot nañ leen ñàkk kon ngir musal leen ci jàngoro ji. xibaaru Afrique nag euh, ba léegi euh, li si li si gën a fees mooy génn àdduna kii di président bi fi nekkoon Tchad di Idriss it Itno euh, gannaaw bi nga xamee ne nag kon dañ ne li ko faat daal moom dafa bokkoon ci ay xeex yoo xam ne ñu lii di l'armée Tchad Tchad ba mu nga doon xeex ak rebelle kon ca la ca la ca la jotee ay gaañu gaañu kon. ba ñàkk ci bakkanam wante am na ñeneen ñoo xam ne sax ñoom dañoo jàpp ne mbir mi assassinat la li nga xam ne moo ci bees nag mooy ajjuma tey bi ci lañ koy defal hommage benn dernier hommage boo xam ne foofu dañ koy amal foofu la ca junte militaire ba nag nga xam ne kii di doomam sax di Mahamad Déby moo ko jiite kon ñoom ñooy amal boobule li liñ ci nemeeku nag mooy am na ay chef d'état yu bëri africain yu fa teew li si gën a fees sax mooy président G Sahel 5 G G5 Sahel président G5 kon ñu ngi fa waaye itam président français bii di Emmanuel Macron tamit teew na fa xibaaru bitim réew ab xibaar bu tiis la boo xam ne ONG SOS Méditerranée ñoom ñoo ko joxe ñoom nag nee nañ Euh, dañoo daal euh, repéré euh, dañoo gis kon ci ci géej daal lu toll ci fukk ci ay nit yoo xam ne kon ñu dee lañ ci ndox mi la gis biir géej ci ci ci géeju loolu nag muy amee ci géeju libi yi ñoom nag nee nañ lu jiitu loolu signalé woon nañ leen benn bato benn gaal kon gaalu loo ci gaal yooyu nga xam ne daal xale yi mbëkk mi xale dañ koy faral di jël ngir dem ci géej gi ñu ne lu ko jiitu signalé woon nañ leen ci benn gaal boo xam ne mu ngi amoon cent personnes cent trente yoo xam ne ñu ngi ci ca gannaaw gën kon euh, ci lañ gis gaal ko ci lañ gis gaal googu nga xam ne kon euh, suux na wante fukki nit lañ jota repêché fukki nit yëpp dañoo dee li ci des nag gisuñ dara kon ñu njortu ne téeméeri nit muy cent trente personnes yooyu yëpp dañoo dee biir géej dañ koy jeexaleek xibaaru sport ak lii di combat Balla Gaye 2 ak Bombardier nga xam ne kon ñu ngi ko naroon amal ñu ngi ko jàppoon le 26 euh, juin bi ñu dëgmal wante nag finalement dañ ko reporté bu ñu sukkandikoo ci journal Source A euh, nee na nag date bi ñu jàppaat mooy 31 juillet wante 31 juillet boobu sax wóoragul euh, promoteur bi di Gaston Mbengue moo ko jàpp wante il faut kon ñu am avalu lii di CNG de lutte daal ñoom ñoo war a valider boobule date leen ñooñu tey ci xibaar rafetlu seen taw lañ jox dégg ëllëg jaa ngeen